بدرا israh li israh li sadri wa yassir li amri waxlul waxdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamualeykum mbokki juliti asalaamualeykum mbokki taalibe yi noo ngi am mbégte dellu si waat ak yéen gannaaw bi sante sunu borom moom mi nga xam ni moo nu may fekkee ba nu mën a dellu si waat ak yéen fii ci rajo xasida online ci seen diaspora ci émission diaspora euh, di ziar ñëpp te jiital ci ziar bi sëriñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi lawal te ànd ak wér di ziar mboolem kilifay diine rawatina cheikh yi sëriñ yi di ziar it sunu mbokk yi nga xam ne ñu nag ñoom ñoo bokk euh, euh, génn doon ay émigré yàlla dogal ñu bokk Sénégal waaye bokkuñu diine ñu mën leen tuddee waa axlul kitaab mu mel ni ñu ci mel ni comité commu communauté chrétienne bi di ziar eh, it waa rajo bi mu mel ni buñ ci jiitalee sëriñ Mouhamadan ak sëñ Ibrahima rek daanaka moom mën nañu ko joxal mbooleem eh, eh, jëwriñ bu nekk ci rajo bi Euh, di it euh, suñu technicien Modou Mbaye Thiam Baye Fall euh, ma ci ànd tey nag ak sama doomu ndey Pape Makhtar Tall nekk fële ca Parme ñu fas yéene tey dégtalaat leen niñ koy defee dimanche bu jot rek seen programme diaspora fii ci rajo Xassida online kon xam naa balaa ma def dara rek damay jox suñ Pape Makhtar mu nuyo ñu dog a dugg tey jii ci tombu bes bi pap bismillah jere jërëjëf seigne pap bismillah rahman rahim auzu billahi mina sheytaani rajim bismillah rahman rahim eh, ginaaw bi nu sante yalla julli ci sangu-sang yi ñu ngi sante suñu ñere way jur bu baax a baax eh, di jital ci nuyo bi seigne muntaha bashir di ko ñaanal yalla bu yag fi lol andax wir Eh, di jël nuyoo eh, eh, ah, bi di ko teg ci loxoom di nuyu bépp kilifa diine ak kilifa aada fu ñu nekk ci àdduna bi di nuyu suñu mbokk chrétien yi ñoom it te ñu bokk ak ñoom réew ma te mënuñu ko séddoo di nuyu nag suñu jëwriñ yi nga xamante ni ñoo nekk ci rajo bi sëñ mahmadan sëñ ibrahima ak sunu technicien modou mbay ci am bay fall koy siar bu baax di leen ñaanal yàlla ñoom it may leen dëgër laay Eh, di nuyu sama buntu ci Serigne Touba di Serigne Saliou Mbacke Darou Salaam di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool eh, di ko jaal eh, kilifaam magam nga xamante ni moom moo fi génn noppaliku fan yi ñu weesu rek di sëñ Modou Mamoun Mbacke bu Darou Salaam di ko jaal bépp mbokk taalibe rawatina waa Darou Salaam. Euh, di siyaar nag mbokku taalibe yëpp euh, mbokku auditeurs yi ñuy déglu ñuy teewlu ak ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla bàyyiwuñu rajo bi benn yoon saa su ne ñu ngi ci waslu àq di di ci ñëw di ci barkeelu di siyaar nag suñu doomu ndey euh, sëñ Mbàkke Mbuub géwlu xaadim rasul El Hadj ñu ngi koy siyaar ñu ngi lay siyaar bu baax a baax gis nañu sa taxawaay fële ca Sénégal it bàyyiwoo benn yoon kon sëñ pap xamna ni ah bala ma lay delo rek deluat nuyu wat wa Parma di len siare bu baax di len nuyu wa xana ma delo la kaddu yi rek ñu dugg ci liggey bi ci kàttanu yàlla. jërëjëf jërëjëf seigne pap Mokhtar jërëjëf mbokki auditeurs yi xanaa di len fatali rek ni yéen ngi déglu seen émission diaspora fi ci radio khassida online ngeen ànd ci ak seen mbokkum taalibe pap dem ba ja fii ci dera sëriñ pap maxtar taal fële euh, parma ci xarala bi sëriñ moodu mbay càmm baay fall euh, ci mila studio sëriñ mbake euh, sëñ pap nag tey ñu bëgg a waxtaanee xam naa ñaari tomb yoo xam ni tey ji moom mën naa ni dañuy mm, nekk italie ndax xew-xew d' actualité la ñu bëgg a tey jii faram fàcce ñaari xew-xew yoo xam ni daanaka mën naa ni semaine bi yëpp moom moo nekk sujet d'actualité son euh, euh, touché nag euh, au plus profond les immigrés ndax immigré moom ñaari yëf moo ko yore mu di këyit ak yoon daanaka bu ko ñàkkee rek mën naa ni nekkinam dafay xaw a doy waar Euh, benn bi di euh, compagnie bi nga xam ni moo di Air Italie euh, nekkoon compagnie boo xam ni jamono yi muy nekkee bi mu doon daw de doonoon ndimbal ci immigré yi ndax moom rek moo fi nekkoon mm, compagnie bi nga xam ni mooy jógee Italie def vol direct Dakar Euh, egg Dakar nga mun ko am ci léeg-léeg vraiment ay njëg yu yu yu yu yu yu xéwale boole si tam mu amoon euh, navette euh, boo xam ni de manière continue loolu xam naa sax dinañ ci duggaat yàlla dogal le 11 bi passé am mina assemblée actionnistes yi Euh, ñi nga xam ni moo di Ali Sarr ñoo ñi ko moom Qatar Airways euh, euh, délibéré liquidation société bi ndax dañ ko déclaré maanaam bor yi mu am ak yooyu daanaka mu war a tëj ba nga xam ni le du onze ba le vingt cinq ci la ñuy def phase pour euh, euh, fallimento bi euh, mu nekk nag phase bu xaw a doy waar ndax ci la ñuy xool processus fallimento bi nommé li ñuy wax curatore ba nga xam ni bula la vingt cinq tàmbalee ci la ñuy commencé nag daanaka tas lii nga xam ni moo di compagnie bi bu dee falimento la euh, lépp lu ci war bu amul ku ko reprendre daanaka mën naa ni euh, day disparaître euh, ci loolu fekkonte ni jotoon na am ndax compagnie ñëpp xam nañ ni compagnie aérienne ay destination yu bari la tey jii day dem Afrique di dem Amérique bari na zone yoo xam ni daan na ko libre mel ni Dakar moom amoon na fa bu bu bu bu bu bu wér boo xam ni daanaka euh, dafa daan dem ak si saa su euh, amoon yoonu Canada maanaam mm, tey jii daal lay wax mën naa la ni ay junni junni junni junni euh, mm, junni junni mm, yoo xam ni. ci ci ci ci ci vol boobu lañ dépendroon ndax vol buy dem buy dem États-Unis euh, vol buy yóbbu ay nit la euh, rawatina nag Afrique nga xam ni daanaka ñun ñi faqir yi yëpp ak sax bari na italien yoo xam ni moom lañ daan jël euh, loolu nag indi jaxasoo ba nga xam ni sénégalais moom bu yi xewee daanaka lu ci ëpp dafay gaaw a jaxasoo ba nga xam ni léeg-léeg ni muy war a def sax du xam te pourtant Euh, euh, bu teelee fagandiku jaar ci fa mu war a jaar yàlla mun naa dogal ba defal ko sutura ba lim ci war a euh, xëy na disaajo yi ci war a am mën na mën na gën a néew tey daal ñu ñu laal pàcc boobu xam naa deuxième partie bi tam ñu bëgg waxtaane li nga xam ni moo di sanatoria boobu nga xam ni moom la nit ñi di wax ba am sax ñu commencé di duggal ay ay vidéo si youtube bi di expliquer nu sanatoria bi na la euh xanaa rek ma jox la kàddu gi sëñ pap nga euh, faram faccel ñu li nga xam ni moom nga gisee euh, jafe-jafe yi nga xam ni la Italie di di dund ak ban taxawaay euh, nga yaakaar ni moom lañ ci war a taxaw ak naka lañu war a mën sénégalais ba ñu mën a am euh, information yi ñu war a am yëpp sëñ Pape bisimilah. waaw jërëjëf sëñ Pape maanaam euh, rafetlu rek xanaa njàngat bi nga ci def ci par rapport ak euh, lépp li nga xamante ni mi ngi lëkkaloo jëm ci yoonu Falimento bi malheureusement mbir la moo xamante ni egsi na ñun nag ñun boo ko jàngee

kay ñew di di dugg ci bëgg ko jënd euh, wa ila bu démé ba nga xamanteni kenn intéressé wul pu jënd aussi liggéey kat yooyu dinañ ci am dinañ subir les conséquences parce que euh, jamono bi ñu nekk ni moom perte sa liggéey dafay xaw a dafa xaw a doy waar lool daal euh, ñuy ñaan rek yàlla suñu borom def ci saafara saafara ko ba nga xamanteni compagnie bi dana taxawaat xëy ci ak yeneen couleur parce que buñu ñu fàtte ni moom moo doon euh, deuxième bandiera euh, bu Italie à part Alitalia euh, te bu liko fàttalikoo tuuti dinañ jàpp ni ah moom mooy vol bi nga xamante ni moom moo fiy di dem directement Dakar donon ben ngëneel bu doy waar ci ñun ngëneel lu am solo ci ñun ndax dafa am ñoo xamante ni ci ñun euh, loi daf leen tënk ba nga xamante ni daf leen euh, destinel vol boobu kese moom dong la ñu mën a jël pour que ñu mën a voyager am ñoo xamante ni euh, ñu jël ay vol yu escale ndax seen wér-gi-yaram moo leen ku dul may ñi nga xam ne dañu am yenn feebar yi war a voyager vol direct rek la duy mën a jël Euh, tey dinañ am gàllankoor bu ni mel euh, ñi am ni dañu yor richevouta te loi bi di wax ne richevouta bi vol direct nga mën a jël parce que yeneen dëkk yi xamuñu ko euh, dinañ am tuuti gàllankoor te yooyu yëpp mooy effet collatéraux yi may wax yu ñuy subir ñun donc Euh, liñ ci mën a yokk leneen rek mooy ak euh, conseil bi ñu mën a jox suñu mbokku taalibe yi euh, ak sénégalais yi vraiment mooy képp koo xamante ni wax dëgg yàlla yor nga Richevouta nga war a dem Sénégal bul déglu Masamba bul déglu Pape bul déglu keneen demal questura bi nga nekk nga xamal leen sa situation que ni man damay ñibbi billet baa ngi nii Euh, jëndaguma billet mais dama bëgg information bu leer parce que vu que Air Italie mom mo fi vol direct buy dem Dakar te da ngeen ma wax ne ma vol direct la wara jël naka la wara mëna comporté wo tax gis nga sëñ Pape laajte méttiwul informé wu euh, informé à temps informé wul aussi fa nga wara informé wo man yalla bima ma tiim na ni sànq ci ngoon am na benn jeune bu ma woo nee ma sax dañ ko jox sama numéro mu génn entraînement nii rek woo ma ne ma damaa bëgg a dem Sénégal mais dañ ma ni euh, Alita Air Italie bi dafa am problème ma ne ko sëñ bi mu ma ne ko ah man day defar du man may defar loi waaye lii nga def rafetlu naa ko conseil nag bi ma lay jox mooy demal questura nga xamal leen ni Air Italie ñoom ñoo la ko gën a xam Air Italie am na problème Air Italie actuellement booy dugg si seen site sax duñu duñu la wan projection bi ngay jëndee billet duñ la ko wan boo fa duggee lañ lay wax mooy euh, euh, transito yi ñuy garantir période bi ba le vingt cinq février au delà du vingt cinq février à partir de le vingt six dootuñu garantir benn kii nangam ak nangam wa ilaa yeneen vecteurs yi la ñuy jël euh, fii ba vingt cinq ñoom ñooy assurer transito yi ak yu deme noonu ak naka ngay def bu demander ce remboursement su fekkente ni online nga ko wala bu fekkente ni dang ko jëndee ci euh, yenn yenn yenn agence yi ak yu deme noonu manam dañ lay indiquer yow ni nga mëna def pour am remboursement kon xam nga ni ñooñu jëlatuñu client donc au moment où jëlatuñu client nak man may sét wax dëgg yalla naka lay mëna informer pour mëna dem ci jamm dellu ci jamm ñun nak dañuy faral naan ah xaaral ma woo sëñ Pape Demba eh, ndax moom syndicaliste la dana ma ci wax dara ndax sëñ Pape du du du du eh, du du police sëñ Pape yorul police police frontière Pape Tal yorul police frontière ndagam loolu nag loi moom moo ko waxoon pour éviter nit ñi nga dem def transit ci beneen dëkk boo xamante dañ lay indil ay problème foofu ñu ne la jëlal vol direct kon dellul ca ña nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk loolu ñii ngi wax nag naan ay Royal Air Maroc xam nañu ko ñii di wax leneen ak leneen ñii di wax leneen mais man li may wax mooy ah policiers yi day fii questura bu Parma gii man damay déggante ak ñoom je les connais toog naa ak ñoom wax naa ci ak ñoom ñu xamal ma ne ma carrément boo yoree Taliandino Ricevuta ah, vol direct ngay jël munoo def Sénégal au-delà de trois mois donc je pense que bu la alkaati waxee loolu loolu ngay mën a jàpp ndax alkaati ba moom moom c'est la loi ñoom la kon bu jafe-jafe amee nag ci vol direct damay delluwaat foofa te incha allah ñu nit dinañ def suñu wàll euh, parce que tam comme ñun tamit informer les populations moom ci loolu la ñuy dox Euh, danay jaadu ñu nit ñu jege questure yi expliquer leen situation boobu bu ko defee euh, nit ñi bu ñu ñëwee aussi demander leen ñoom bu laajee ñu bindal leen këyit waan leen euh, que ni mën nañoo def transit non plus de vingt quatre heures ci même dëkk bi wala nangam ak nangam pour éviter nit ki aussi jóge fii def transit dem jaari feneen ak feneen mu indil ko yeneen jafe-jafe ci jamono bi nga xamanteni ñu ngi wax ay coronavirus ay vol yu jóge fi dañ leen di mettre en quarantaine donc ça veut dire que ñu ngi ci benn tournant ak situation bu xaw a doy waar bu xaw a doy waar du ma ni sax bu doy waar mais dama naan bu xaw a doy waar ndax bu ju bo toogee benn jamono bo xamanteni amna benn peste bu nekk ci aduna bi euh, tay ñu ngi wax benn euh, cas en Afrique Euh, tubaab yi jamono yele ci ginaaw ñu ngi naan ay il faut que sax ñu commencer di euh contrôler vol yi jóge Afrique ñu dégg ka bu jóge Égypte euh du sax africain far ndax chinois la chinois la bu doon voyager def transit wàcc keer wa keer téye ko def ci mom euh, investigation xol fu mu jaar ak fu mu jaarul euh defal ko test bi gis ni mom amna virus bi donc pays africains yi déjà ciblé nañ leen ci feebar bii pays africains yi ciblé nañ leen depuis ca Ebola boobu ba léegi donc loolu mooy wane ni suñu dem ak sunu dikk jamono bii dina xaw a tagatémbe tuuti ndax même bu fekkente ni def nga escale sax faaw ñu indil la ay yenn jafe-jafe ci ay contrôle ak euh, ci côté sanitaire hygiène ak yu demee noonu ñu profito ci nag lancé wat benen appel ci bagage sax yi nga xamanteni dañ koy walé parce que tam euh, dëkk bu bu jamono touti euh da nga wara adopté wu touti ak euh, li nga xamanteni ni la jamono ji laaj nañuy maytu tamit yenn xeetu lekk yi ñuy traversel frontière ak frontière parce que comme nee virus yi mi ngi joggé ci alimentation parce que nee nañu pipistrello njugub ak ak nangam ak nangam euh, mais njugub yooyu daf ko jaarale ci ay alimentation ndax Chine gee buñ la defaralee vraiment reportage nga gis ni même négoci sax ñu ngi commencé am problème euh, Italie gii ñu nekk am na ay restaurant chinois yoo xam ne actuellement tey jii ñu ngi commencé am problème parce que kenn dugutu fa donc bu ñu demee ba tollu ci jamono boobu nit ñi ñoom ñoo war xoolaat taxawaay yi xoolaat comportement yi xam ni la woon démb nekkut tey lama ma ciy naxarlu rek mooy peut-être euh, ñun sunu sunu sunu état aussi war na ci mën a dox benn jéego. waaw parce que bu vol direct manqué war nga mën a xalaat tuuti ne ah am na ñoo xamante ni mënuñoo ñàkk jël vol direct mooy ñi nga xam ni seen yaram sutante na lool. dëgg yàlla ta war a dëppaat dellu euh, dellu seen dëkk wala ñi nga xamante ni vraiment ñu ngi nekk ci phase yu compliqué te war a mën a dellu jël vol direct pour delluwaat Sénégal ñooñu bu ñu euh, cas yu mel nii taxawoo boo leen bëggee defal escale euh, bu doon coûter vingt mille euros dana coûter su bu subaa quarante mille euros donc kooku aussi je pense que état war nañ ci dox jéego ñu ngi wax Air Sénégal international bi boobu ba léegi Italie mi ngi xaar euh, ndax vol boobu dana fi ñëw wala du fi ñëw mu mel ne que dañu sous-estimer les euh, voyageurs yi nga xamante ni ngi Italie di dem euh, Sénégal te yàlla ni li di dem Sénégal bari na bari xel parce que il paraît France jot na ak beneen dëkk ak donc yu Eh, état war na ci xeyna profito pour mana eh, dugu mana mën a dugg mën a ay ay ay domam ñom ño fi nek domam yoyu dañoo bok ci économie di participer ci économie dëkk ba kon war nañ leen mën yombalal seen dem ak seen si ci eh, Sénégal ak Italie gi ñu rawati na sax ak imprenditoriat bi nga xamanteni mi ngi jaabante digënté Sénégal ak Italie parce que buñu faté ni Sénégal c'est un pays Euh, appétissant actuellement ñu ngi koy wax c'est un pays appétissant ba nga xam ni nit ñi dañuy jaabante di dem di ñëw euh, kon daal sëñ Pape xam naa ni vraiment gàllankoor la gàllankoor la euh, luñ ca mën a wax rek mooy ñaan ah ay jamono Air France bëggoon na fi jënd Alitalia waaye xam nga italien diggante italien ak français seen lien de cousinage yooyu euh, demoon na ba nga xamante ni vraiment euh, italiens yi xaw a xeebu loolu ci kanamu français yi ba nangootuñu woon sax français yi jënd Alitalia bi bon air itali bi euh, bi Meridiana nekkee ci ay jafe-jafe ñu def def appalto bi def cambio di appalto ñoom bi ñu ko defee tuddee ko air Italie mais Meridiana continuer yore agence am Euh, tay ji amna ay jafé jafe euh te voli fumi dem barina comme ni ngi ko waxé ndax euh, alxames ci ngon rek ben datore di laboro wona ma nee ma mom vraiment xamul nu muy def pour que ligéyam katam ñew parce que nigeria la nekk kat bi bi mu démé aéroport dañ ko ni vol bi ñewul vol nek fi tay lool nak même sama mbokk sénégal yi nga xamanteni ñu ngi sénégal wara ñibisi Euh, nañ ci teel a gëstu parce que mën nga toog ba gannaaw suba nga war a dem wala nga waroon a départ Sénégal euh, semaine prochaine au delà du 26 ñoom ñu woo la gis ni ah Vettori bi de wax dëgg yàlla am na ay poste ñu woola ne la ñibbisil ñëwal boo bëggee dem ñëwal nga ñëw euh, jël post bi nga ñibbi donc variation yooyu il faudrait que ñi nga xam ni ñu ngi Sénégal te jëloon ko vraiment ñu teel a jóg ndax nag olof day wax xob ko bala ngaa lakkale. ndax budut loolu da ngay obligé daggaat billet boo daggee billet ba noppi après ngay soog a mën a dem pour demander remboursement ndokk nag ndokk nag ba nga xamante ni air italie xalaat na ni ah koo xamante ni wax dëgg yàlla jëluloo euh, garantir luñu service bi demandé nañ la pour nga ñëw def remboursement ñoom ñu rembourser la donc ñoom déjà pensé nañu ci loolu parce que bu ñuy wax falimento bu ñu tegee curatore fallimentare euh, commissaire bi taxaw euh, lépp lay mettre euh, lépp lay dugal ci biir liggéeykat yi clients yi viaggiateur viaggiatore yi ñoom ñëpp lay dugal ci biir bor yeeg lépp lay def ci biir donc ñoom heureusement pensé nañu pour rembourser nit ñi doon na gën a metti bu dee nit ñi kii nañu ba noppi te du ñu am ku leen rembourser Euh, donc vraiment dal man li ma ci gëna lancer moy un appel aussi à notre état pour que ñu gëna mëna renforcer le vol Air Sénégal international bi pour que muy ñëw Italie et puis ñu gérer ko téye ko ñu ko wara a parce que euh, day am mbir yo xamanteni bu bu nekkee ci sa loxo euh, boo ko sàmmul keneen day ñëw jël ko di di utiliser say sa ay doom di di leen ngëneel yëpp ci ñom lay dem dal daanaka. ndax air sénégal international amoon na fi vraiment mu doonoon mbir moo xamante ni doon na dugal dara sax nag ci sunu réew waaw lu mu gàtt gàtt am na lu mu doon dugal ci sunu réew te ñun ñoo ca daan voyager euh, contribution la woon ñunit buñ daan dugal di def euh, lañu fa ñu jaaroon it ba loolu yàqu ñoom yaakaar naa ni def nañ ci njàngat ba loolu dootul am kon dañuy lancer waat cet appel woo sunu gouvernement yi à ce que nañu tisser le lien xool fañ jaaroon ñu ñëw jaaraat fa xool ba xam am nañu possibilité pour euh, euh, tegaat vol boobu pour que sénégalais yi aussi am possibilité boobu pour mën a yomb am benn fluidité aussi ci voyage yi mais daal sénégalais yi nga xam ni vraiment ñu ngi war a voyager ak seeni euh, taliando nga nekk Sénégal comme nga nekk fii war a dem na nga informé wu fan ngay jaar ak ndax mën nga cee def transit donc kooku moom ñu ngi leen koy ñu ngi leen koy dénk wax dëgg yàlla te it dinañ ci def aussi vidéo jaarale ko ci Facebook yeeg jaarale ko yëpp pour nit ñi dégg ko ndax euh, vraiment bëgguñu kenn am ci ay jafe-jafe ndax yooyu mooy effets collatéraux yi ñuy wax sànq rek waaw ndax la cay gën a metti du ñun ñoo koy jot ndax tey jii ñun ñii ku ci bëggoon a dem boo taalee sa oto jaar nii dem France dem jël charter foofu wala nga dem jël Air France wala nga jaar Bologna dem jël leneen ak leneen euh, mais effet effet yooyu daf ñuy tardeel daf ñuy indil ay coono euh, te it mën nañ cee perte billet wala ñu perte ci suñu séjour ba ñu téye ñu Tunisie sonal ñu te ñun ñëpp kenn ku ci ñun kenn ku ci ne ci ñun xam nga traitement bi nga xamante ni naar yi ñu ñu koy traité ci aéroport yi def nañ ci émission fii mën na naar yi mën nañoo xam situation bee commencé di ñu ci taliando yi ndax lépp a ngi ci maanaam benn euh, li ñu daan phase di stallo mbir moo xamante ni dafa taxaw demul dikkul euh, phase boobu la ñu nekk nii ndax naar yi ba dara daawul xew Air Italie amul benn problème def nañ fi émission defe naa ak sëñ Ablaye suma juumul ñu dund ci volu naar yi dund gu metti bañ naan sax nañu boycotté volu naar yi. mooy Tunis Air te Tunis Air defaat na ko defati ko. kon ñoom bu nu gisee Air itali am problème bi nga yor Taliando leerul ci seen bopp loolu tey mën na la indil ay coono ñu sonal la foofu. moo tax boo ciy voyager rek utal information yu leer waaw information yu leer. ku ci yorit malaat boo xamante ni wax dëgg yàlla dañ ko war a dépêché mu dem Sénégal nangam ak nangam. il faut que euh, faire appel il faut faire appel aussi aux autorités parce que tam bu nyomit il faut qu'ils interviennent parce que euh, euh, malade bu war dem dafa dem donc il faut que ñu trouver les conditions état tamit jàpp ci ñu mën leen dépêcher le plus rapidement possible yooyu Euh, wax dëgg yàlla dañ ko dañ ko war a di jàng di di li tubaab naan moni Eh, di di jàng situation bi saa su eh, dara bañ ñu cee rëcc pour que au moins ñuy mën a di joxe la juste narration quoi eh, éviter it di laaj ñi xamul waaw ndax ñun boo nu laajee lu nu xamul dañuy dem gëstu ji indil la waaye bu fekkee da ngay laaj ma Samba retourner laaj ma Demba je pense que da ngay da ngay tâtonner rek di tâtonner te fii yaa ngi tâtonner sa yoon bu leer waaw suñ pap daal loolu daal vraiment mën bëgg nañ ko dénk suñ mbokk sénégalais yi di naqarlu bu baax euh, problème mu air Italie parce que lu mu gat gàtt gàtt gàtt gàtt nit ñi dañuy wax naan dañoo bon dañoo soxor euh, duñ la may benn kilo duñ la may ñaari kilo waaye euh, loolu yëpp xëy na dañ koy def pour sa sécurité rek pour sàmm sa sécurité ndax avion dafa am poids boo xamante ni moom la war a jël Euh, lu ñu arrangé la woon lu baaxoon la ci ñun euh, ñaan yàlla suñ boroom rek euh, mu mu saafara ko ci kàttanu yàlla. waaw suñ pap xanaa rek damay tàmbale fi nga jeexale da nga wax ñaari da nga tudd ñaari institution yoo xam ni mëneesu ci bañ a dellu si waat ndax da wax ni tey jii lii nga xam ni moo di processus de fallimento yi fii Italie la ñëpp gis nañ ni euh, société bu toll nii dayoo dayo nii Air Italie gouvernement italien mooy koy suivre mooy suivre processus de fallimento bi à travers mhm. lo sviluppo ministère de lo sviluppo economico tey jii ñoom ñooy xool parce que la fay liggéey ci mbooloo day bari la nekk ci alal day bari euh, la mu amee ci alal donc dafay incidéré daanaka ci piilu euh, secteur aviation waaye it ñun sénégalais yi euh, dafa nekk tam secteur bu stratégique boo xam ni man yaakaaroon naa ni ñaari nit dinaa leen dégg bërki démb ba léegi waaye dafay confirmer que ni ñun les émigrés sénégalais nous sommes de laissés pour compte Euh, sëñ Pape sunu ambassadeur bi mu ñëwee ba léegi dégguñ ko. Hmm. Euh, sëñ Moïse Sarr tam ba mu ñëwee ba léegi. Hmm. dégguñ ko xaw ma nag lu xawma ko mënuma def benn jugement ci moom. Hmm. Euh, dégguma ko dans le sens. je sais que mi ngi ñëw Italie. waaye tey lu mel nii bu amee. ka teewal sénégalais yi ci ci àdduna. war na mën jóg dalal seen xel. Hmm. proposer sax benn xalaatu tampon boo xam ni ni leen sax ñun bu leen nee sax ni ñun de ñu ngi ci xalaat suñu xel dana mun a dal. Hmm. waaye man dama gëm ni euh, ñun euh, immigré sénégalais yi nekk Italie. Hmm. dañu am problème ak sunu état. xëy na wala état wala état moo am problème ak état bi dafa am problème ak ñun dama ragal ni xëy na résultat élection yi fi mujjee am moo waral peut-être mu am maanaam taxawaay bi ndax it dama koy wax damay teg baaraam ci loxo bi dama seetlu benn benn benn benn fee bu am commençant ko ba ci suñu biir nekkin fii tey jii ka nga xam ni moo daan gën a jaxasoo communauté bi. Mhm. le consul général. Mhm. ça fait un bon moment gisatuñ ko ci benn activité publique moo xam mhm. activité religieux yi événement religieux yi ak yeneen xew-xew yi euh, sunu ambassadeur bu bees bi ba mu ñëwee ba léegi dégg guñu benn taxawaay bu mu jóg taxaw donte techniciens yi fi nekk ñu ngi liggéey parce que loolu mhm. euh, euh, li ñuy wax ordinaire administration la mi ngi am mhm. et ka nga xam ni moo yore baatu réew mi mhm. mu yegg si euh, Saliou juuf de dama koy fàttali ndeysaan maa koy jaar bu baax bu baax excellence ba mu ñëwee li mu njëkk a def benn tournée la commencé ñun Toscana dëkk yëpp la def fekk si association yi ak daayira yi Mhm. ni leen gan laa ci dëkk bi te j'ai besoin de vous dama ñëw pour xamante ak yéen jël seen contact xoolal joxe numéro de téléphone am personnel. Euh, mhm. euh, euh, séréer la sama kal la lu nee mën naa koo ko waxal ba mu des jaxasoo mhm. ak askan bi. tey ji mën naa ni presque at a ngi nii. Hmm. parce que le temps muy dem kii di ñëw di jël euh euh lettre de créance am di joxe manam il y a un vide absolu bu am entre nos autorités ak dëkk bi hmm. vide nak bu ma koy wax damay wax sur le plan politique ndax xëy na ñi nga xam ni am nañu peut-être mais mise pour mëna am ay ndomba tank yo xam ni ci walu politique mën nañu dem gisante waaye ñun de man mii de xaw naa am ak tiitaange Hmm. xaw ma nag yéen foo leen ci toll. looloo hmm. tax bi nga waxee état dama ni ñun de sunu état dafa am problème ak ñun. parce que hmm. tey ñu nekk ci difficulté yu mel nii. mu leer la ni bu fekkee am na sénégalais yu nekkoon ñu demoon te leer na ma ni am na sénégalais yoo xam ni jël nañu billet te boo moytuwul après le vingt cinq février la ñuy ñëw. parce que ñu nekk ci diggante fii ba le vingt cinq daanaka amul problème. foofu mm-hmm. euh, euh, euh, gars yi dañu xool ñi bëgg a mun mën nañu changer ñi ñu war a mm-hmm. delloo seen xaalis ñu delloo leen mais problème bi daanaka ma ngay commencé bu le vingt cinq février jotee ba société bi falliré réew officiellement ñu ne mm-hmm. société bi existé tugul nga xam ni tey jii lu ñu war a dox curatore fallimentare bi moo koy dox nga xam ne tey jii moom mooy dajale bor yi bor yooyu dañuy ubbi benn euh, euh, euh, moo xam mail bii nga xam ni moom la ñuy joxe mu di refounds mm-hmm. chiocciola italie punto com nga xam ni mm-hmm. xëy na beneen mail la ñuy joxewaat pour ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk foofu kon day mel ni ñi nga xam ni dañoo nekk Sénégal mm-hmm. nekk ci vacances war a ñibbisi te seen ñibbisi romb le vingt cinq bie boo ñu faga wut benen biye wut benen biye ndax hmm. après le 25 mom, mëno hmm. xalat ar itari remboursé la ci tempi yi nga temps bi nga xamni moy sa temps wu ñibbisi mënta nek hmm. kon euh, euh li ngay mëna def moy jaar à travers ton agence de voyage mais bari na air italie ño xamni ni ñu ci bari danaka par internet lañ daan jëndee billet yi Mm-hmm. donc ñi nga xam ni dañuy jëndee internet billet lu ci bari te sénégalais yi yu ci bari dama koy xool tey jii dinaa ko waxaat mus naa ko wax da gis ku jël billet deux cent euros ñu ne la def ci causale assicurazione mm-hmm. vingt euros nga bañ nga ni dafa cher fekk ne vingt euros yooyu da lay dimbali léeg-léeg Euh, am na yenn assécuration ne yoo xam ni cas yu mel nii boo ko flégaré woon maanaam def ci ay assura euh, assurance yoo xam ni euh, boo ko flégaré woon nii in caso di manquement di mun a amaat beneen départ ñi koy jëndee par internet laay wax kon léeg-léeg bu ñuy tam di jënd billet yi ci internet ni ñuy lire contrat yi bu baax ndax léeg-léeg nga yàkkam rek gis benn billet bu yomb nga gaawantu jënd ko mënoon ci donte yomb na nga nga yokkaat ci benn kiiraa kiiraay kiirlaay boo xam ni dafay gën a jox assurance billet bi ndax léeg-léeg billet bi dañ laa ne la billet bi euh, bo boo raté sa voyage wala nga dem ñu ñu vol bi yooyu yëpp am na ay ay assurance yoo xam ni par internet boo ci duggee Pape Makhtar dina la mën a taxaw waaye assurance bi gën a wóor tey jii te mu manqué ñu mooy sunu nguur Pape Mokhtar. Mm. nañ ko wax te dee. Mm-hmm. ñun moodu mm-hmm. Italie. dama ragal ni sunu gouvernement dafa commencé di ñu faire payer les pots cassés. la ma dégg Casamance waa xaw ma ban il dem di laaj euh, seen waaj yi seen soxna soosu nu mu tudd ki yore dialogue euh, euh, affaire damay fàtte tur bi innocence. ñu hmm. dem ndeysaan di ko ñaan benn xawma lan mu ne leen dem leen ngeen ñaan ko ko gouvernement bu responsable nag bu dee loolu la gouvernement bu responsable waru ko def hmm. ndax nag ñun dafa am lu ñuy représenté Sénégal tey jii hmm. ma dellu si waat wax ni euh, li ñu Paris bee nga xam ni Air Sénégal daf koy dox defe naa ubbi liñ New York ma dégg ñuy wax ubbi na Suisse defe naa ni Euh, Milan hmm. Dakar Milan amul hmm. benn route bu ko gën a stratégique bu fa am hmm. ndax tey jii euh, euh, maanaam ligne Milano Dakar ligne la boo xam ni waxuma sax sénégalais yi waaye homme d'affaires yi koy dox par semaine kenn xamul nu mu toll eh. man toll naa fi ay jamono yoo xam ni daanaka damay jóge fii dégg dem mission jóge Dakar Euh, jóge fii dem ci semaine bi dellu si ci semaine bi daanaka booy dem ay italien rek wala wala ay tubaab ngay àndal ci vol yi mm-hmm. euh, mu nekk benn euh, route bu stratégique boo xam ni wax dëgg fa yàlla Air Sénégal nga xam ni sunu compagnie la ñun ñu moomal ko suñu bopp ñu koy mm-hmm. bàkkoo ci àdduna bi defe naa ni Italie mérité na ñu jox ko une route stratégique boo xam ni dafay nekk une route régulière boo xam ni dinañu sax mën a dimbali ci wàllu suñu problème mu kayit yi ñuy am ndax dafa hmm. jaatuwul tey jii un sénégalais euh, war a jaar ay ay Tunisie ay Maroc parce que dëkk yooyu rek nga mun a jaar boo bu sa këyit nekkulee en règle ñi nga xam ni mooy loolu nga wax ci wàllu ci wàllu renouvellement yi xeet yi ñu leen di jox ñuy ñuy dund ay difficulté ñu dem ci dëkk yooyu ñu leen di sonal di leen dajaloo ay ay ay métit di leen maltraité amul benn service ci yi bu leen bu leen di te te dañ leen di jox xaalis bu weex tàll ndax boo xoolee sénégalais yi li ñuy dugal ci air Maroc ak li ñuy dugal ci Tunis air ak air Algérie kenn xamul nu mu toll waaw est-ce que jaaduwul ñu am compagnie aérienne boo xam ne di Bandiera suñu dëkk moo ko moom est-ce que jaaduwul mu indil ñu sunu euh, euh, euh, yoon boo xam ni xaalis bi ngay dem di ko joxe mu doon billet yoo xam ne bokk nañ sene Dakar itali bokk na ci route yi gën a cher ci ci ci ci ci ci ci ci ci àdduna bi ndax ndax euh, taxi yi ñuy teg ñu jox ko sax mu delluwaat lépp suñu dëkk moo gën a jaadu sëñ Pape waa jërëjëf sëñ Pape xam nga dafa am euh, fi nga fi nga laal noonu fu am solo la ndax euh, mooy sous-estimé bi ñu sous-estimé Italie. manam ci eh, domaine bo laal rek da fay feñ domaine bo laal rek da fay feñ man japp na ni eh, gis nga bo démé aéroportu Paris nga dem Charles de Gaulle taxaw ni ngay gis sunu ministre yi di di di def défilé de mode di di wacc ci avion yi di dem di lijeenti ji ay contrat di dem di waxtani di dem di nangam ak nangam italy rek lay gis un ministre bu fi rencontrer les sénégalais en tant que ministre mais day rencontrer les sénégalais en tant que membre de son parti motax may faral di wax ni ñun fi malheureusement état musu fi ñëw état musul ñëw Italie parce que état bu ñëwé Italie je pense que di nga dindi sa partisans partisan nga indi sa mbubum citoyen en tant que citoyen nga rencontrer tous les sénégalais de la diaspora ku and ak yow ak ku andul ak yow ku la gëm ak ku la gëmul nga indi sa plan bi nga xamanteni mom nga bëgg ñëw nga doxal ko ci doxinu gouvernement <coughs> waxuma ci doxinu parti de mais ci doxinu gouvernement mais en général li fi ñëw ou bien le président da fay ñëw daje ak les membres de son parti ci hôtel wala ci ay salle waxtaan ak ñoom bu jógee dem ou bien le ministre daf fiy ñëw Sori Kaba ñëw na fi Sori Kaba ñëw na fi ñëwati fi ñëwati fi mais bu ñëwaan qu'est-ce qu'il faisait ñuy jéggalu sax ci tur biñ koy tudd parce que nekkatul la mu woon mais bu ñëwaan da daan dem au consulat giseeg le consul waxtaan ak moom ñu convoqué les associations yi nga xamante ni moom la ñu bëgg a convoqué du ko association yëpp lañu daan convoqué convoqué les partis seen parti ñu waxtaan la ñuy waxtaan ñu tënk ñu dem waa léegi nag le sénégalais lambda mi nga xamante ni moom politique ñoru ko politique intéressé wu ko waaye doxinu Sénégal intéressé na ko waaye koom-koomu Sénégal intéressé na ko ndax xëy na dafa bëgg ubbi dara senegal bëgg na def dara senegal mais koku xana bokul mom ci yëf yi donc bu doon mbir mu xawa doy waar da ngay dem ba yow da nga naan man xana bokkatuma ci réew ma da nga naan mais man xana man état du ma tenir en considération da ngay dem ba nga naan man xana man tey dara bu ma daloon fii xanaa état tey du jóg taxaw ñëw jóg dox ci samay mbir wala mu lijjanti ci samay mbir bon autorité diplomatique ou consulaire yi fi que euh vraiment euh, d'où pour euh, jeter des fleurs à son excellence euh, Rochaya. mais day semaine yi ñu génn wax de yalla Le naa ak mom ci liggéey bo xamanteni vraiment gis na ci taxawayam ak choono yi mu ci daj ndax ci benn sunu benn sénégalais bu ñu euh, depuis l'ambassade lañ ñu ko signalé ñu ci dox ci dox lu semaine on à trois quatre reprises dans la semaine vraiment au-delà de sa disponibilité aussi normal parce que l'autorité aussi ça sert à ça quant euh, à l'ambassadeur man gisuguma ko waaye nag jël na téléphone am wooñu en tant que CARES woona la vice-présidente woona aussi Badara parce que xam na Badara dégg na Badara euh, à l'ambassadeur wax nañ ko turu Badara et cetera jël na téléphone am woona Badara Euh, woo na Sely en tant que vice président ba jël téléphone am jox ma ko ma ne ko waxal Pape Tall moom en tant que président na ma woo donc gis naa benn ouverture ci moom mais dafa am beneen euh, situation boo xamante ni dafa ma xaw a désolé tuuti <coughs> parce que sëñ Pape ñun dañuy ñu nekk euh, association boo xamante ni dañuy daw guddi ak bëccëg ci soxla jaamu yàlla yi euh, ba ñu ko créé suñ pap ma nga Firenze man maa nga Parma Raymo nga Ravenna euh, soxna Fatou ma nga nekk ba Trieste euh, Seli ma nga Ancona Badara ma nga Rome Pierre ma nga nekk Napoli ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bëgguma lim ñëpp ñooñu day di ay sénégalais bu ñu créer lu nu mel bëgg créer le pont entre les autorités ak la communauté jël bataaxal bind ko xaatim ko signé ko tamponné ko yónnee ko ki nga xamante ni mooy jëwriñu diaspora bi ñu dégg ni ñëw na fi ñëwati fi te rencontré wul ñi nga xamante ni dañoo jël bataaxal bind ko jox ko seen disponibilité deman tàllal ko loxo ci lépp loo xamante ni dañ ko war a liggéey ci diaspora bi loolu ñun daf ñuy indil tuuti préoccupation daal. Mhm. alors man j'en que moo tax may faral di wax ni du état moom moo fiy ñëw kon. donc su fekkee le secrétaire général euh, des Sénégalais de l'extérieur ñëw na fi en tant que état en tant que le secrétaire général de le secrétaire d'état je pense que war na rencontrer ay structures yu fi nekk yoo xamante ni dañuy taxawu.

quarante pour cent bi quarante pour Italie lay joge Italie lay jóge parce que différence bi nga xam ni moom la immigré yeneen dëkk yi am ñoom daanaka ñu ci bari dañuy dem foofu toog jënd seen mm-hmm. kër euh, immigré yi nekk fi donte dañuy investir fii sax mais boo xoolee rimesse yi ñu yóbbu Sénégal moo ëpp par rapport ak ci lépp nag nga jël ko ci daayira yi jël ko ci mm-hmm. projet de coopération ak lu mu mënti mm-hmm. doon itali li muy yóbbu boo ko boo jëlee par dëkk itali hmm. tey jii rek moo ëpp continent américain moo raw continent américain bi waxuma la nag yeneen dëkk yi daanaka weccit la waaw mais sëñ Pape sëñ Pape bu ñu taxawee tuuti ci spirituel bi ci daayira yi daayira yi xoolal Italie ñaata kër Serigne Touba ñoo fi nekk ñaata kër Serigne Touba ñooy dajale li ñuy dajale dajale seen am am jël ko di ko yóbbu di ko yóbbu ñaata la moodu yi nga xamante ni ñu ngi liggéey ci campagne yi ñaata lañu fi itali te bu campagne jeexee ñu fi toog dañuy ñibbi ñaata muudu ñoo fi nekk ñoo xamante ni buñu fi defee at seen bopp moo leen fi bàyyi mm-hmm. air Italie bii boo fut boo ci duggee muudu yi boo ci gisee benn moodu bu ñu rax xëy na Belgique lay jóge wala feneen wala sax boo moytu sax du jógee Belgique day jóge beneen dëkk waaye ña fay nekk ñëpp ci air Italie bi Italie la ni France ngay jël dem fa fekk fa juróomi sénégalais yu jóg yu jóge France. ñuy mm-hmm. transiter genn wàll gi yëpp ay Italie lañuy jóge mais kon vraiment gëdd bi nga xamante ni Italie mi ngi koy prétendre ñun ñu ngi aspirer euh, prétendre loolu wax dëgg yàlla nan ñu yombalal suñu dem ak suñu dikk. comme nag air Italie moom moo fi nekkoon am na coono yii am na problème yii kenn ñaanalu ko ko woon vraiment nañu desservire Suisse ak feneen ak feneen ak feneen nañ ñu ci boole xam ni ñu nit ca la bokk waaw nañ ñu boole ci loolu xam ni ñu nit ca la bokk parce que amul benn dëkk boo xamante ni la ngay dugal Sénégal dugal nga lu toll ñun ñii lañ fay dugal waxuñu ko nak pour dañuy ndamo italie dedet mais xam nga mbir bu joté rek nañuy waxanté li nga xamanteni mom mo fi né parce que lolu mom mo ñuy jappalé kenn ku ne xam bopam parce que boudé dee ko def merum def euh, merum euh, xawma fajuk mer donc état amna na problème parce que bu boba nak état day fay fàtte ni italie gi ñu nekk parti au pouvoir musu fee gañe état mi ngi fàtte loolu mhm. waaw parti au pouvoir moom mësul gañe fii ci Italie mhm. kon bu ñu bu fekkente ni moodu moodu yi wala sénégalais yi wala électeurs yi voté nañu am nañu beneen taxawaay bu dul taxawaay bi nga doon yaakaar nangam ak nangam nga ni xaaral naa leen koñe ci lii naa leen defal nii naa leen def nii naa leen def naa jaa bëgg jaarale ci mer bi nga mere sa parti ça se voit que donc ñu ngi parti bi ak patrie parce que bu vous parti ba liggéeyul la mu wara euh, la indil ndam bi nga nga ci je pense que comme li bi di wax rek non puoi pas mettre euh, l'herbe dans kon il faut que ñun lu ñuy solliciter mooy état di fi ñëw di toog di waxtaan ak ñun li tax nag ñuy continuer di ko solliciter parce que dafay am luy raam ci ñag bi la jëm xam nga fan yee passé ñu ngi wax naan Côte d'Ivoire am na accord yu mu signé te euh, ministre Di Maio mi ngi wër mi ngi wër di dem ci dëkk yi mhm. te état bi ñun bu ñu continuer noppi nii état dana signé loo xamante ni danañu xëy fii kenn ku ci nekk di am loo naxari te duñu xam fu ñu koy jooyee ah commencé nag di ko di di leen ko wax di leen xamal ne leen ñun li fi nekk xam nañu ko te it bu leen yaakaar ni bàyyi seex googu ngeen ñuy jàppee depuis mille neuf cent quatre-vingt-quatre ba léegi yaakaar ngeen ni bàyyi seex googu moom moo fi nekk ñu nax seen bopp ci bàyyi seex googu moodu yi fii li fi fiy def Sénégal kenn defu ko fa ci bàyyi seex googu moodu yi fii li ñuy voyagé kenn voyagé wu ko kon nag ndokk nan ñu jox suñu gëdd te xam ñun ñooy kat mhm. ndax nag buñ ñu ko deful ñu ñuy toroxal feneen ak feneen naar yooyu ñuy wax ñaata yoon lañ fi dégg ñu toroxal ñu mhm. dañ dégguñu ci benn réaction dégguñu mhm. ci benn réaction kooku aussi dañ koy dañ koy wax dañ koy dénoncé ñaata doomi sénégalais suñu mbokku taalibe ñoom ñoo transité jaar ay air Tunisie air Maroc air nangam ak nangam ñu toroxal leen ci yoon bi ñu sonn ci yoon wi lool ba dootuñ leneen dootuñu jël vol yooyu mais dégguñu ci réaction mm-hmm. état yi war nañ ci wax mm-hmm. parce que ñooñu seen benn doom lu ñëw Sénégal ñu koy toroxal yenn toroxal yi mm-hmm. boo ko defoo nit di nga dégg seen seen seen ministre kon la ñuy sollicité mm-hmm. vraiment mooy que ñu jàppale ñu vraiment ci fluidité bi tegal ñu vectoré boo xamante ni Air Sénégal lay tudd wala lu mu mënti tudd mais ñu boole ñu ci ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla euh, ay sénégalais lañu nan ñu jàppee ni sénégalais xam ne ay citoyen lañu dañoo bokk ci réew ma te fii lu fi waaye am euh, Sénégal nga ko jëmee mm-hmm. kon ñu boole nag sëñ Pape <laughs> waaw sëñ Pape xam nga man li ci jaaxal mm-hmm. mooy ñun suñu gouvernement naka lay gérer actualité mm-hmm. parce que na gis yu xew nii bu amee euh, tey jii dama koy wax ni immigration boo xoolee journal yi journal mm-hmm. euh, euh, kii ni ko ti hmm, tijji rajo yi mm-hmm. ñuy def ay hmm, bu ñuy joxe ay ay xibaar maanaam di xew fii dañ koy joxe en temps réel mais manam traitement de dossier yoy damay gis ñun suñu gouvernement. hmm ñu suivre actualité hmm mais mais mais mais fay jaadu tey jii. Hmm. le ministre des sénégalais bobu ñuy wax affaires étrangères hmm. mais di def un communiqué. wax hmm. naka la gisee yëf yi. taxaw euh euh euh, euh euh euh ñu ngi ci doon wax semaine bee di wax xew-xew bi xew Chine. gis nga démb. Euh, dix-sept Cheptegei boobu ñu dem jëli avion militaire Chine. waaw moom benn cote benn nit ñu jëli ko. Mm-hmm. Euh, yow yow yow nga yore waxuma la benn nit mais nga yore ñoo xam ni tey jii euh, li tax sax mu ciy dugg. mooy dafa am mm-hmm. semaine bi beneen xew-xew bu am. Mm-hmm. bari na yu dugal xaalis wari ñu bloqué ko. wari c'est Euh, Madame, c'est une société euh, euh, de bandiera sénégalaise. Mm-hmm. Kabiru Dans problème mm-hmm. yu ne lañ koy mm-hmm. société de bandiera boo Sénégal de toutes les conditions pour nous liguer. ndax développement ou wari wari. xaw xawmuma hmm. ku ko moom ça ne hmm. m'intéresse pas Kabiru Mbodj li ma intéressé mooy hmm. Sénégal la dëkk sénégalais la la muy am ci sunu réew lay des kooku tey jii est-ce que jaadu nañ ñuy bloqué ay paiement moom ñeneen ñi di liggéey normal tey ji nga xam ni tey jii bu it sénégalais yi nekk Italie je dis bien mes mots et je Mhm. bu ñu toogoon ñaari weer yónnee wuñu Sénégal guerre civile am Sénégal. Mhm. <laughs> guerre civile laa lay wax guerre yàlla yàlla nañ ci yàlla musal. Mhm. bu ñu toogoon Sénégalais yi nekk Italie bu ñu toogoon téye seen poos ne du ñu dugal xaalis Sénégal. musiba am fa. ndax nag dëkk bi metti na boobu ñuy wax. li tax gars yi di wax metti na rek toog seen kër. kër goo ci gis am na ku nekk Italie koo xam ni weer wu dee wu nekk dana dana dugal wari war mu dugal Western Union mm-hmm. mais dafay jaadu yenn sujet d'actualité yi yi nga xam ni c'est stratégique mm-hmm. suñu ay kilifa jóg mm-hmm. addu ci dalal suñu xel wax ñu ban taxawaay ñoom lañ ci war a taxaw mais pas tey ay léeg-léeg daanaka da xool Euh, euh, euh, ñun dafa mel ni bokkuñu sax ci ci ci ci ci Sénégal moo moo mooy mooy xoolal xoolal par exemple da koy xool rek ci dialogue politique bi ba ñuy tànn. Hmm. maanaam jëluñu sax ay représentants de la diaspora pour laaj leen seen xalaat. Hmm. parce que ñooñu considéré wuñu ay nit. Hmm. bu vote jotee nag ñu jaagar jaagar indi fii ak seen financement yooyu ñu naxe ku nekk nag yaakaar ni yow yaa rey gaal gi. Ah, bëgg jóg di jàngar jàngari jàngar mm-hmm. yaakaar naa daal war nañu seetaat ñun suñu taxawaay ah, je le dis nag parti politique yi politique fii mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom ñoo ils se disent les représentant de parti war nañu mm-hmm. mën a am taxawaay bu ñu taxaw ndax léeg-léeg da ngay bokk sax parti au pouvoir gis loo xam ni erreur la ci côté gouvernement bi nga jóg wax ko pour dëgëral sa parti waaye Sénégal rek ngay gis boo farek nguur gi lu mu def nga ni baax na mm-hmm. boo farul nguur gi lu mu def nga ni bon na mm-hmm. mais war nañu mën a ñun ñi nga xam ni ñoo nekk bitim réew mais di trouver ay terrain d'entente ay consensus yoo xam ni mm-hmm. ñi fi nekk ñëpp wax dëgg fa yàlla war nañu mën a nag am foo xam ni ñoom ñëpp fay gisandoo loolu nag man damay yaakaar ni dafa jot léeg-léeg ñoom koy xëy na comme ñoom ñoo am contact parce que ñun ñi nga xam ni ñooy technicien yi di liggéey fii wax dëgg fa yàlla pour nga euh, euh, am contact daanaka boo ko cherché wul doo ko am. Mm-hmm. te man ma yaakaaroon ni jaadu na tey jii euh, ñooñu nga xam ni ñooy représentant wu waa dëkk bi. Mm-hmm. am ay techniciens yu leen wër ci dëkk yi. Mm-hmm. xëy na yaakaar naa ni war nañ ko am. ba nga xam ni bu actualité amee. ñu mën a répondre ak température dëkk bi. mais bañ hmm. xaar di tamponner ay situation parce que ñun nag ci loolu rek la ñu nekk tamponner. bu ñu reyee hmm. nit ñu xaar ba maanaam euh, euh, euh, ba waa dëkk bi commencé ñu yónnee kenn mu indi jaxal présidentiel. Hmm. nëpp nëppal dem. buñ ñëwee ñi ngi waaj def ñu bàyyi ba nit ñi jóg ba commencé yëngatu ñu doog a jóg. te war nañu mën a rek léeg-léeg di jóg di prévoir. Ah, di dox ay ay mbir yoo xam ni dañ koy dox pour mën a. Euh, euh, euh, éviter éviter yenn yenn jafe-jafe yi defe naa daal sëñ Pape bu fekkee am nga leneen loo ci dolli ñu dolli ko ci sinon li ñu desee bareetul ñu mën a dugg nag ci deuxième tomb bi sëñ Pape ma jox waaw mën nañoo wax Modou Mbaye Thiam bu dee mën naa ubbi bi rek en attendant bu dee gaa ñi am na ko ci bëgg a barkeelu mais sëñ Pape da wax lu am solo foofu maanaam gis nga tey jii boo demoon Sénégal nga ubbi sa benn société boo xamante ni mi ngi concurrencé ak benn société euh, stranière étrangère buy buy buy buy opéré biir Sénégal yow daañu def le tout pour nëbb la yow mii sénégalais c'est-à-dire dafa nekk loo xamante ni réalité la daañu def le tout pour nëbb la yow mais da xool wari sénégalais yi un sénégalais né au Sénégal Euh, liggéey liggéeyam créer benn instrument boo xamante ni na ko tubaab yi di defee noonu la ko defee instrument boo xam ni euh, déjà la nga cay fay moo gën a mooy cher defuñu publicité wu kenn nag parce que xamuñu sax kan mooy kabiru mbóoj ma moom wari xamuñu ko man xamuma ko suñ pap xamu ko rajo bi it yaakaar naa ni kenn xamu ko waaye dafa di un sénégalais comme ñun di jullit comme ñun ci li yaakaar def loolu yaakaar nañ ni ñun kooku dañ koo war a dooleel yàgg nañoo wax fii ci rajo bi ni ñun immigré yi dañoo war a créer moteur boo xamante ni dañuy war di ci yónnee lañuy yónnee foofu lañ ko war a yónnee pour di autofinancer suñu bopp ndax wari am naa yaakaar ni lu mu bon bon ah am na ay sénégalais yu mu jël ñuy liggéey ndax tey boo demee sama koñ am na ko fa ubbi wari fukki waree nga fa foo tourné hmm. foo ëlbatiku kantinu euh, war yaa ngi taxaw donc ñooñu ñu ngi ciy liggéey hmm. ñu daan seen doole hmm. waaye yeneen yi nga xamante ni duñu ay sénégalais xamuñu ñan ñoo leen moom ñi nga dëkk ay Irlande ak ay yu kenn xamul non seulement ñoo gën a cher deuxièmement bi duñu ay sénégalais te taxes yi ñu cay fay ñun delloowu ñu ko ci biir Sénégal parce que taxe loolu lay jariñ mm-hmm. mais sëñ Pape taxe yow liggéey bii ngay liggéey taxe yi ngay fay mais ci lañ lay defaralal hôpital bi ci lañ lay defaral tali bi mm-hmm. ci lañ lay defaral classe yi ci lañ lay defaral leneen xam nga xam nga lu ma gën a metti Pape Makhtar mm-hmm. société yooyu fan yee maa ngi koy dégg ndeysaan euh, problème mu ICS bi euh, suuf yooyu ñu jël nga dégg

wax dëgg fa yàlla xamaguñu suñ taxawaay sëñ déedéet c'est malheureux man dafa lay jox exemple euh, fii ma nekk Pontedera mm-hmm. nga xam ni euh, maanaam dafa am dëkk boo xam ni ñun dañu am société bi te euh, ramasser mbalit mi fii la mm-hmm. nekkee muy tudd Geofor comme genre mm-hmm. Brescia ñu am beneen dëkk bu mu dendal bu tudd Peccioli nga xam ni peccul yi foofu la ñuy euh, mooy mbëbës mooy mbëbës waaw dëkk boobu boo fa demee mhm. maanaam da ngay ni comme yaa ngi Suisse ci wàllu ay euh, lu nit ñi di am waa dëkk bi seeni mhm. taxe maanaam école bi euh, asilo nido parce que nag mhm. maanaam mbalitu nit yi ñuy jël ci biti muy dugg seen dëkk dafa am job nekk bu muy def ci biir dëkk bi waaw dëkk boobu boo fa demee mais da xam ni yow mii kat bu ñë dëkk wax dëgg fa yàlla dañuy yëg ni ñoom kat am na lu leen dëkk bi di delloowaat mais mhm. boo ñu kaas ko moom te pourtant mhm. ku jëli sa bu ñu paree fa lañ koy dem yóbbu empuissement yeeg euh, mhm. scave yeeg yëpp lañ koy dugal te doo dégg kenn xeet breccia noonu la seen seen seen incinérateur boobu ñu am bu ah, mhm. la ni kon dëkk ah, mhm. doomu aadama dañ ko war a respecté ba nga xam ni wax dëgg mhm. fa yàlla buy sonn di daj dara loolu muy sonn dafa war a dellu ci moom si euh, euh, euh, ma ma balaa maa dem rek mu dugg ci ñaareelu tomb bi ndax mel na ni li ñu desee bareetul ñaareelu tomb bi moom daanaka rek moom ak bii ñoo takkaloo ndax semaine bee Euh, gis nga euh, internet yi réseaux sociaux yeeg whatsapp yi. daanaka mm-hmm. euh, li ko lëmbee man démb rek am na waaju ma woo ndeysaan ma nekk daayira mm-hmm. mu ne ma ndax yëg nga la xew fojja. loolu nag mm-hmm. bëggoon naa wax dëgg fa yàlla. su dee dëgg la gars yi confirmel ma ko maa ngi déglu mbokki auditeurs yi ku ci mën a dugg. ci wàllu may kayit bi nga xam ni moom lañu ñu commencé. intox bi bari na. nit déjà am na. ay nit yuy dem di wut ay kiit kiitu poste yi dem di fay mais loolu dafa yenwul euh, mm-hmm. euh, maanaam maanaam sénatoria signé guñ ko te it sénatoria pour ñu signé ko dafa am benn parcours bu mu war a jaar sëñ Pape euh, mm-hmm. wax ji bari na ci lool te it en général bu commencé mel nii rek dafay mel ni dóorkat yi dañu dañu dañu dañu commencé liggéey mm-hmm. Eh, yow sénatoria bi lan ngi ci dégg sa boor yooyu ndax fii moom daanaka mën naa ni toj na rajax ah sénatoria bi de xanaa c'est virtuel man de <laughs> naa ni xëy na sénégalais yi rek la ñuy may kayit loolu daal laa yaakaar de loolu lay dund sax nag dafa mel ni man dégguma naar wax ko déguma ivoirien wax ko dégguma euh, beneen xeet wax ko hmm. li may gis daal mooy sénégalais yi ñooy woote ñooy yónnante message ñooy ñooy ñooy ñooy dugal ay whatsapp ñooy dugal ay vidéo ñooy wax ci ay waxu këyit mm-hmm. euh, sëñ Pape ñun lu ñu dugg rek yàq ko mm-hmm. lu ñu dugg rek suñu pecc moom ndaateel la ko yàq euh, neexula wax nag ndax euh, dañ ciy jéggalu bu baax ci kàddu yi waaye tey jii buñ ne woon fii sax dañuy maye këyit sénégalais bi du nangoo dem. Mhm. day ba naar ba dem ba keneen dem ba keneen dem ba mu des benn ñoom ñu ñun ñooy mujjee ci rang ba ca gannaaw di buuxante ñun suñ biir ñu naan xoolal sénégalais mais nañu def ndànk nañu teey nañu def ndànk ban sénégalais moom moo liir ci gazette ufficiale que ni ñu bind nañ ci ne dañuy mayee këyit. Mhm. waxuma sax ITER bi ñu muy jaar euh, projet de loi. Euh, conseil des ministres euh, sénat parlement président après premier ministre après contre contrefirma mu dugg gazette ufficiale cento venti ni après muy soog a nekk loi mais waxuma loolu mais kan moo liir ci gazette ufficiale rek ni gis na ñu bind ci ne nangam la ñuy commencé maye kayit nangam ak nangam waxuñu waxu flux decreto flusso leneen la lu bokkul ak sanatoria décrétu Flusso bokkul ak sanatoria décrétu Flusso at yi yëpp mi ngi am at yi yëpp décrétu Flusso mi ngi am te gisaguma sax gouvernement bi mu génnee ay quota ren ci décrétu Flusso conversion yeeg nangam ak nangam gisaguma mu mu mu wax ci lu bari parce que gis nañ euh, situation yi ci nekk parce que ñu ngi doon wax sax naan dañuy wàññi quota yi parce que ñi ciy déposé bariwuñu non seulement parce que parti sociale yi def nañ ci benn réunion ñoom. Mm-hmm. gis nañ ni ñi ciy dugal non seulement bariwuñu conversion yi ak yooyu ñoom ñoo ci ëpp ba noppi ñi ciy dugal ñu ci bari fi ñu ngi fii xam nga eh, donc man sénégalais yi man je pas à comprendre am na ku ma yónnee kit fa faalewuma ko sax wax dëgg yàlla euh, def naa ko dispetto mais euh, malgré man parce que euh, yow kit bi nga dem nga jëli ko poste gis nga kitu poste yi si yow xam nga kit mi ni mel mm-hmm. ci yi boo ko ubbe mais page bu la neex ngay jël foofu da ngay renouveler per studio wala da ngay renouveler per lavoro a tempo sub euh, lavoro subordinato nangam ak nangam gaa yi jël kit bi euh, photo page yi nga xamante ni moom mooy lavoro subordinato bi bàyyi yeneen page yi xam nga kit doo compilaale lépp la la ca intéressé rek mom ngay compiler par rapport ak permis de séjour bi ngay demandé gaay photo loolu diko jiraré nak nan li sama gaay nek fo ja ñoo ma ko yónnee ak vocal nee nañ ma dal bo démé déposer ko ci taxaway bi fofu lañ lay joxee këyit ma euh ala yàlla na am no damay ñaan li ngeen di wax ni yalla na am loolu la ni ñaan ñun mais nak bir vraiment bu ñëwé euh, taxaw yow mi ñu ko jox sax euh, laata mo ag ci ñun sax wax deug yalla yow mi ñu ko jox war ngaa xol xamni li jaaduna wala jaaduwul mais au delà de ça man dafa am benen aspect bo xamni dama koy jang ndax as ndaw as soxna su ne fi wo benn mbokam bu nek ba bordo ay kay di fa bi woo ma sank ah man day grand sama ben euh, cousine moma euh moma doon expliquer neena ma dawal nga ñew gaaw parce que Italie dañuy may kay mané ko yaangi liggéey mu ne ma wa mané ko continuer sa liggéey bis bu yalla dogalé ñuy may kay mu ne wa mané ko suivre page kades bis bu ñuy may kay dinañ ko duggal ñun suñu profil personnel dinañ ko mm-hmm. duggal ci page yu kades dinañ ci def émission dinañ wax nit ñi naka lañ ci mëna def yeen anam la ak yeen condition lañu mën a def ba am ci kayit yi déposé ci nangam ak nangam. Mhm. ma ne ko fii may wax ak yow nii euh, fasen njeer yi ñoom ñoo nekk di dox ak bukki yi waaw moytu leen bukki yi nag bu leen joxe kayit bu leen joxe xaalis bu leen joxe dara kenn mënu leen wax ne leen ñu ngi maye kayit boo ma joxee ma déposé la leen te te à part loolu mais ki lay déposé moom mën na la garantir ndax diñ nañ la may wala duñ la may. balaa ñuy egg sax ci euh, ñu ngi maye kayit wala maye ñu kayit donc man je pense que gars yi il faut que ñu am tuuti raison garder nañu continuer nekk ci waar wi nañu dem liggéeyi te xëy te bàyyi euh, social bi ñuy nekk di wax ay ñu ngi maye kayit ñu ngi may lii ñu ngi am na yeneen mbir yu ëpp solo yoo xamante ni war nañ ko lijjanti xam nga fii la nu tubaab yi rawee ak yeneen xeet yi am na yeneen mbir yoo xamante ñoo ëpp solo fuuf ndax réer di ci tari naan sa baa ngi nii am na ay sénégalais yoo xam ni ñu ngi leen di laaj lañ leen joxoon. ah ak ñu nekk Sénégal fi mu ne nii ñu convoqué. parce ne nii am na ku ma ko defal. Ah. Euh, mu jóbbu njabootam yëpp Sénégal te doom ji daanaka kii la woon ni ñu koy waxati di di sotten la ñu woo ko convoqué ni ko bu ñëwul bu ñëwul dañ leen di molte ñoom ñëpp. li may waxee eh, tey ngi. xam nga gars yi ah. comprendre ñu loolu fi nii. am na mbir yu am solo yoo xamante ni war nañ koo mën a waxtaanee kenn ku ci nekk nga xam ca na nga cay toogee. Mm-hmm. yooyu ëpp solo. Euh, euh, yëkkati polvere boo xamante ni amaluñu benn njariñ ndax loolu bis bu amee ñun ñii ñun am nañu devoir wu wax dëgg yàlla wax ak askan wi xamal leen ne leen ah lii de am na. lii de ministre bi ñu ngi koy waxtaanee conseil des ministres ndax sëñ Pape ñun nag bokk nañu foo xamante ni syndicat yi ñu bokk. conseiller mhm. ministre bu ñu toogee di waxtaan bu ñu génnee bala ñoo génn seen buntu boobu ñu yëg li xew. dëgg la am na am na mel na ni am na mbokk mu nekk ci biir ñu dalal ko salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw kooku. Xaadim Ñas. waaw sëñ Xaadim ñu ngi ziar de naka yi tey. waaw def. ñu ngi ziar bu baax alhamdulilah. waaye Xaadim. alhamdulilah tabaarikàlla. bisimilah. bi ngeen di wax nag waa ko def de. Hmm. waaw man de dugal naa xaalis su ma dem ñu bañ. ne ne li ñuy fay moo tax ñu ngi ko jox wax ki ma wax ki ma dugaloon mu wax mu am nee na moo tax. ñu ne. téeméer lañ ci am ñoom waa Sénégal. alors ah, yéeme na de. te nee na di dugal daa bëri man de loolu la ma tontu ba mujj na ko léegi kon dagg ci xam nga xam nga loolu déjà moom laay expliquer boo Western Union ak yeneen xeet yi li ñuy lekk ci ñun. Mm-hmm. xamul toll. Euh, euh, wari mm-hmm. est-ce que xam nga créé nañu application boo ni deux euros ngay fay. man téléphone. deux euros yooyu sëñ Pape xam nga ni boo maayee ndax tey jii immigré bi nga xam ni dafay def application bi ci téléphone am. Hmm. maanaam mën a dugal un million fay deux euros. ñu ne deux euros yooyu dafa tuuti nañ ko yóbbu ci euh, western mu fay cinquante euros euh, euh, quarante cinq yi dellu dellu Amérique. mais loolu mooy ñàkk bëgg suñu bopp. mais ak contrôle bu metti ngay wax waay. te te ñu mënoon a. te ñu mënoon a xaalis boobu. buñ ko iñaanee wari mais nañu ko Sénégal créel ñun à travers benn application boo xam ni ñun ñoo koy moom ni ko Pape Makhtar de waxee nga xam ni xaalis bi day desat ci biir dëkk bi ñu fay liggéey dafa des ko soxnaam daa yor turu naar dong waaye ko dugalee wesi kese loolu dong lañ koy sonal mm-hmm. waaw bu dugalee wesi mi daa bala cee jot day sonal lool non politique la politique la boo xamante ni waa RIA waa Western Union ñoom ñoom ñooy def propagande yooyu ci banque yi xam nga nag ñooñu dañoo am doole. waaw ah, ñooñu xeex da moom. ñooñu xeex ak ñoom dadul yomb. parce que multinationale yi lañu. suñu mën a wax li ñuy wax protectionnisme. Mhm. teg leen ay données yoo ay ay daan ay maanaam ay droit yoo xam ni. ki nga xam ni moo nekk ci dëkk bi wala moom ci boppam état bi mais état bi xaalis boobu war na ko mun a jël bu créer loo xam ni tey jii agence boobu ñuy wax tey jii agence su immigration diaspora bi mais bu ñu amoon hmm. seen banque bopp ñoom ñooy teg seen software boo xam ni immigré buy dugal du fay. Hmm. Euh, nga nga paap. immigré état yi na génn xelam ci état. ku la yéene nga faatu loo wopp mu xeer nga baal ma ci wax. dafa diis de waaye dëgg wér pegg sunu xel nu ko génne ci état noonu noonu état arrangé wu ñu defal dara wax dëgg yàlla ngeen baal ma. xanaa dina xeex. <laughs> day waar. day waar day waar. <laughs> yéeme na. naa benn bu xorom xam nga lu muy wax. nee nañ ci gouvernement bi dañoo bëgg di war ay 4-4 ñun ñu ay sareet. te loolu yàlla du ko def. <laughs> ndax suñ solde yi fii moom solde ministre yi noo tolloo loolu la ñu yéenewul nag ndax ñun jànguñu sama classe bi boobu jànguñu waaw mhm. te yàlla dogal ñu ngi laal la ministère yi laal mhm. ndax la yor mhm. loolee lan ñu yéenewul nag moom seen paap moom da ngeen sonn rek waaye soo wuñ génn suñu xel de ku la ñeewul du la ku la ñeewul du la yërëm waaw jeex na yéene nga boo feebaree day jërëjëf jauh, yàlla jauh, ngi leen di diglu am na ci fan yooyu diglu dañuy gën a woote bi wax dëgg yàlla. moom daal doy na wax dëgg yi ngeen wax. mbokki fan la sëñ Mbacke. baax na Pape kon ñu faral jàmm. mani mani fooy wootee. Santa Cross gii. ah Santa Cross ma ah dëgg la. kon sama mbokk ngeen yéen jërëjëf. jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Niass. wala la men dëgg la dëgg la dëgg la baa xew ñu faraan jàll jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw Maxtaar kàddu yi diis na de waaye nag neexul ba neexul ba ndax moom boo feebaree moom daanaka du kontaan waaw xam nga li ma ko wax rek nee naa ko ku la ñeewul du la yërëm dëgg la waaw ndax moom li ñuy wax rek ñun moom waxuñu ndax wax dëgg yàlla dañoo bëgg a euh, tuutal kenn wala ñu sànni xeer kenn loolu yëkkatiwu ñu yëkkatiwul rajo bi waaw wallahi azim euh, li ñu intéressé mooy le bien-être social des sénégalais ak fu ñu mënti nekk nag mm-hmm. muy Italie muy France muy Belgique muy nangam ak nangam mm-hmm. euh, saa su ñoo ngi yëkkati ay kàddu di wax ni am na ay doxin yoo xamante ni ñu ngi koy dox fii ci réew mi fii di kuréel bi ñu taxawal tuddee ko CADES Italia bu doon suñu sago dañ koy créer sax en Belgique en France feneen ak feneen rien que pour di mën di jaamarloo ak suñu suñu suñu sunu euh, kilifa yi sunu gouvernement yi suñu sunu njiit yi bu ñu ñuy mën di weccoog ñoom di waxtaan ak ñoom mm-hmm. waaye mi boroom kër sa sax boo fa deful naka sudut noonu du amee doxin woo xamante ni doxee noonu soxna si dana la bàyyi ba nga tëdd ba guddi mm-hmm. ah, sëñ bi lii ak lii ak lii bu doon sama sago day nga doxee nii mm-hmm. wax la ko ci sutura waaye ñun sëñ Pape sutura si day bëgg a yàgg xanaa li mu mat euh, ñeent fukki at mm-hmm. te ku ñëw rek euh, la fa kee def li fi li fi ñi fi nekkoon def bu bu bu bu yeesul euh, da ngay ree ba tas mm. saa su ne ñoo ngi gën a yëg luy metti ci ñun saa su ne ñoo ngi gën a am lu ñuy naqari mm-hmm. dafay jaadu nag yenn saa yi dafay mel ni ñii di ñëw dafa am benn euh, yóbbal buñ leen di jox boo demee doxeel nii doxeel nii doxeel nii mm-hmm. bul toppatoo ñii bul wax ak ñii mm-hmm. parce que nag bu fekkente ni ka ñi fal Mekon yow yow yay euh, takhawal diaspora bi. Me mhm. yakana, diaspora bi bo fademe, diaspora bi doudem ge seti les otorite konsuler ak diplomatik lol do diaspora bi. Mhm. Yow sey natango etatik ngey dem seti. Yon yon sey natango le nyon. Nyon nye se vizit ofisyel, din kodef alakulial, mwen yon pouye anpontre la diaspora. Man je panse bien ke euh, minister du tutel bou fi nye de faware, jaren kontre le Senegalè. deug la amu doon lu nuy waaj c'est pas que da ngay ñëw tey suba nga bëgg ni sénégalais yi fekk leen ma rom mm-hmm. sénégalais yi ñu rom ñoom ñëpp tas mm-hmm. mm-hmm. ci réew mi te bu nu fay ñëw dañ koy waaj ah donc boo fiy ñëw boo ko waajee bëgg daje ak sénégalais yi ne serait-ce que pour rien que nga am rek ay xalaat yoo xamante ni dañ la koy wax nga xool na ngay doxale son excellence saliw diouf dañoo toog di waxtaan ma koy bu baax baax dëgg mhm. ndax nit nag bu la defalee dara da koy wax mhm. ma ko fekk ba dama koo téléphoné mu ne ma yow ñëwal sama kër mhm. ma fekk ko ba këram rom wallaay keroog euh, yàlla sedd na ni ma mi ngi sedd sedd bu métti may yoruma oto yoruma dara ndax train laa demee rom ma jël kaar xaw a riir tuuti vraiment di dox ci sedd bi ma ne noo jaral na ma ko ndax ki euh, daf ma daf euh, lim ma lim ma lim ma ji ndax mënoon na yéegal mbagg ne man autorité am laa kii du ñëw sama kër bu ma soxlaa na ma fekk sama bureau. Mm-hmm. waaye deful loolu dafa ne ma fekk ma sama kër. ma ko fekkee këram it mu xamal ma wax ma carrément ni nga xamante ni euh, autorité noonu la war a doxee bu fekkente ni bëgg na liggéeyal euh, kiyam askanam mais sëñ bi si Saliou Diouf wax na ko nee mënoo nekk Sénégal bëgg nekk euh, ministre du tutelle pour diaspora mënoo mm-hmm. mënul nekk c'est pas mm-hmm. possible mm-hmm. c'est pas possible mënul nekk parce que diaspora bi du Italie kese euh, Mali sax diaspora la mais boo demee Mali ñan ngay rencontrer la communauté sénégalaise ngay rencontrer dëgg la Italie rek laa gis bu ñu fi rencontrer la communauté mais ñaata yoon la ñuy wane. waaw mais nag mais nag mais nag am nañ ci responsabilité vieux. waaw ñun am nañ ci responsabilité parce que nag mooy sunu mbokk yi mooy sunu mbokk ak politique yi fi nekk. nañ ko wax te dee euh, boo xoolee fii genn wàllu wala euh, boo jëlee président d'association yi boo leen xaajee ñeenti xaaj ñetti xaaj yëpp ay représentant parti lañ. Mhm. Euh, ñooñu ñooy wax ni ñooy représenté parti yi. waa astafurlaa sénégalais yi waaye ñuy politique. loolu nag c' mettre en otage sa communauté. parce que bu fekkee yow da nga ni da ngay nekk président d'association, association. ba pare nag bëgg nekk un militant actif de parti waxuma sax militant mais représentant de parti. là ça risque de créer des confusions. loolu bokk na ci li nga xam ni. tey jii limal rek ñi fi nekk ci parti yëpp boo leen boo laalee seen parcours ay président association lañ loolu nag lu devons doy waar la lo xamni danaka handicap la ci ci communauté sénégalaise pour Italie. Mm-hmm. non mais lolu lolu lolu mom c'est vrai parce que lolu mo daan dem sax ba l'autorité bu fi mësaan ñew euh muy njëkk a def mom moy convoquer les les présidents d'association waxtan ak ñoom euh, d'une part président d'association yi autorité bi lolou mu def nonou parce que association yi ñom dañuy représenter comme le gouvernement territorial parce que consul bi mënul dem fep donc hmm. président d'association yi lay yi hmm. di ak ñom xalaat ci doxine yek ak yenen ak yeneen hmm. consul bi dina convoquer euh, les présidents d'association comme ni ambassadeur di défait ñuy waxtaan ak ñoom ci ba ay plan de travail ci nu ñu mën a liggéeyee nangam ak nangam. Mm-hmm. Mm-hmm. mais dafay am lu sew lu koy rax muy politique bi. Mm-hmm. li tax euh, bukki di yëpp gaynde rek ne ñu ne ca waxin ca doxin wala mooy ni que les associations yi nga xamante ni dañ leen a politiser ak les partis politique yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk que cela soit opposant wala parti au pouvoir il faut que ñu dindi euh, fulaar bi nga xamante ni moo lal seen diggante ak parti bi ak digg waslu ak diggante ak communauté bi ñu xam ni communauté bi moo jiitu parti bi mm-hmm. te communauté bi mooy dëkkandoo bi communauté bi lu la fi dal lu la fi mës a mën mës a mën mën mën a xoos communauté bi moom mooy taxaw parti du fi taxaw dëgg bu ñu fi discriminer man ak yow ak sunu moroom ñooy génn taxaw ci mbedd mi kaas ko Mm-hmm. parti du fi taxaw diko kaas kon nañu jiital communauté bi bala ñuy wax leneen mm-hmm. parce que un patriote loolu nga wara def parce que man mënuma gëm ni yow patriote nga ba paré ngay jël ay idée wu parti bëgg lal sama digënté man ak ak la communauté mënu nekk mm-hmm. gëw sa patriotisme ñi nekk à à à l' aussi nañu wéyelee ñoom ak ak loolu xamni ñoom ñu ngi fii tey ëllëg ñoom ñooy nekk xëy na ci nguur gi yàlla rek moom moo xam bu ëllëgee nañu am beneen taxawaay bu dul taxawaay bii mm-hmm. parce que tam euh, man bi may ak euh, masamba bawa masamba politikul xëy na manit politique mm-hmm. waaye tey masamba ngay politique euh, man mi ngi far fii man maa nga far fee léegi lobby yooyu ak ay ay ay ay turu parti séddale nañu ba nga xamante ni talatuñu sax lan mooy jëmale suñu njaboot ëllëg lu leen di jëmale kanam tàllatuñu ko mm-hmm. ndax topp ay parti poli politique boo xamante ni yow le ministre bii di fi ñëw amul lenn lu lay yokk lan la lay yokk lu dul moom dafa war a sa baay faal la war a doon c'est dëgg ah. le ministre bu fi ñëwee le ministre tutelle dañ koy fay parce que yow yaa tax ñu koy fay mm-hmm. daa war a déglu yow tu as le devoir d'être informé par rapport ak li muy ñëw fii di ko fi def mais ñun ban information lañu am par rapport à ces ministres yi ñëw fii wala le ministres italiens yi dem Sénégal di fa waxtaani on n'a pas d'information sur ça ñu mm-hmm, mm-hmm. laam-laamee naan Côte moo ñu wóor ni Sénégal signé na am signé ci dëgg la ñu ngi dégg def ay émission ñoo ngi kaas ñoo ngi wax mm-hmm. ñu koy kaas ñun moom dañu koy wax te it ku ñu mhm. ko def fii danañ taxaw danañ ko wax danañ ko kaas fu ba dem danañ ko dem kooku moom duñu ko may kenn mhm. parti au pouvoir amul opposition duñu ko may kenn parce que il faut qu'il sache aussi ñuy am toujours euh, raison garder ci yenn affaire yi parce que ñun Sénégal moo ñu gën a lépp lu ñu am mhm. bu doon politique kese askan wii buñu leen di ah, ñu àndoon ak ñoom Italie gii ñu nekk buñ fi politiqué am fi dara mais ñoruñu suñu réew moo ñu ñor. Mm-hmm. waaw suñu réew moo ñu ñor. Mm-hmm. donc réew ma nag nekk dëkk boo xamante ni tellement appétitif. ñëpp mm-hmm. ngay ñëpp ngay ji lu ñu fa am ñëpp ngay dem outil lu ñu lu ñu fa ubbi ñëpp ngay dem entreprendre euh, ñun ñi nga xamante ni ñoo ngi nekk fii on nous ouvre pas les portes kenn du ñëw di waxtaan ak ñun kenn ñu laaj lan mooy seen xalaat ci doxalinu réew ma kenn duñu laaj yéen bu ëllëgee lan moo leen di xaar par rapport au seen pension wala nangam ak nangam. suñ pap ñaata ñaata suñu mag ñi ñoom ñoo nekk fii am ay soixante cinq ans. Mhm. léegi. loolu jaadu na soixante cinq nekk ci réew mi fii ba léegi. Mhm. ñenn ñi am na am nañu sax inhabilita mënatuñu liggéey. soo koy wax sa xol bi sax dafay jóg. amul benn mécanisme na bari na ñu fi nekk ñoo xam ni ci diggante bii lañ nekk mënuñu génn mënuñu dugg mënuñu am pensionné parce que mm-hmm. matuñu te it mënatuñu ñibbi ndax wax dëgg fa yàlla mënoo nekk ci dëkk liggéey ba tollu ci benn at te te dëkk boobu warula warula yor loolu nag lu lu xaw a la suñ pap mel na nii lañ ñu joxoon ci waxtu jeex na xanaa ma joxaat la kàddu gi rek mm-hmm. nga nga nga nga jéem a tëj rek sëñ Pape ñu dàqaat. waaw li li ñu euh, li ñu bëgg a naar yëpp mënuñu ñu ko mënuñu koo yegg li duuf yëpp ci nag bi xajul dëgg la dëgg la dëgg la. xam nga yëf yi moom. bu mm-hmm. yaram yi tàngee temps bi gaaw. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> mais daal vraiment ñu ngi ñu ngi ñu ngi kontaan di jéggalu bu baax ci kàddu dara am na lu ci lu ci lu ci déranger. Mm-hmm. lu ci dëng suñu ñàkk matadi waaye yéene rek la ñuy wax ak euh, loo xamante ni dafa dañu jàpp ni war naa mën a doxal askan wi te it aar sunu askan euh, loo xamante ni vraiment am nañu yaakaar ni bu ñu ko waxee dana am lu dolleeku ci ñun ci lu lu positif mm-hmm. Euh, mm-hmm. ñaan suma mbokk sénégalais yi nañ leen ko waxee woon ca njalbeen rek képp ku ci am air italie jegel sa agence ku ko jëndee woon agence moom demal ca agence ba bul lijjanti leneen demal ca agence ba wala nga téléphoné leen wax ak ñoom ñoom danañ la teg ci yoon. Mm-hmm. Euh, ñi nga xamante ni dañu yor taliando bi xeet gi bëgg euh, ñibbi wala euh, ñu nekk Sénégal bëgg a ñibbi si. Mm-hmm. nañu woote ñu teg leen ci yoon wala ñu woo dem questura wax ak ñoom ci ban anam la ñuy jaar pour mën a ñibbisi wala pour mën a dem. Mm-hmm. Euh, di woo it euh, suma mbokku euh, sénégalais yëpp ñu am tuuti raison garder par rapport ak propagande yi yi ñuy def nii naan dañuy maye kayit ak dañuy nangam ak nangam ndax ma àgg na ba France àgg na ba Espagne ñenn ñi ñu nga doon waaj di ñëw di dugg Italie pour ñëw donc ñu ngi créer yeneen yeneen dégâts yeneen disaat ji yoo xamante ni xamuñu sax lu muy jural nit ki. Mm-hmm. tey tuuti rek loolu bu amee ñun ñi nga xamante ni ñu ngi ci wàllu wi danañ ko wasaare ba ñëpp jot ci faram fàcce ko ci rajo bi ak instrument bu nu yorit danañ ko fa dugal ba ñëpp jot ci kàttun yàlla kon nañu teey rek ndax ñun rek nekkuñ ci réew mi waaye dafay mel ni ñun ñooy quatorzième communauté waaye ñoo fi ëpp bruit te loolu yàgg nañu ko wax Euh, di jégaluwaat bu baax rek xam naa di jox euh, dox daje ñi euh, mbokk auditeurs yi beneen dimanche incha allah ak yeneen itam jërëjëf sëñ Pape. waaw jërëjëf sëñ Pape Makhtar waxtaan bi tey amoon na solo lool ñu ngi ziar mbokk yi nga xam ni wax dëgg fa yàlla ñun ak ñoom daanaka saa su ne ñu ngi bàyyi xel ci moo xam ci rajo bi la moo xam ci Facebook bi wax dëgg fa Eh, ñi ngi ziar ku waaye ñi ngi ñi ngi sant ñëpp eh, ma nag benn sant particulier bu may def sama jigéen ndeysaan soxnaa su baabu maa ngi koy gis ndeysaan mi ngi dugal benn <laughs> vidéo bu am solo ndeysaan si YouTube bi ñu ngi koy ziar bu baax soxnaa su moom it def ñuy suivre ñu ngi ziar it honorable député Nango maa ngi gis ni mi ngi ñuy bàyyi xel ndeysaan mi ñuy suivre bari na mbokk yi ñuy ñu siiw di ziar bu baax sunu jawriñ sëñ Saer Cissé sunu sunu sunu sunu jawriñ ñu ngi koy ziar bu baax waaye it di di ziar Cheikh Mbacke Mbuub alaaji géwlu Xaadimu Rasuul moom it eh, eh, di ziar sëñ Ablaye Diop ak mbokki taalibe yi nga xam ni eh, dimanche bi jot rek ndeysaan ñun ak ñoom ba waxtu wi du ñu bàyyi daanaka maa ngi dégganteeg sànq ndeysaan benn mbokk bu sant Diagne dëkk Pesaro suñ mut Diagne ndeysaan mu may wax ni ma man dimanche euh, lépp lu may def bu waxtu bi jotee euh, euh, rajo bi rek laay bëgg taal déglu kon nag loolu dafay neex vraiment ñu ngi sant bu baax di sant sëñ Mbacke Niass mi dugg di ziar mbokk yi auditeurs yëpp di leen jégalu ci lépp loo xam ne nag kàddu yi dëng la waaye it di leen xamal ni rek doomu aadama matul waaye lu ci jub. ngeen xam ni eh, eh, eh, ndimbalu sunu sunu borom la di sant bu baax Modou Mbaye Thiam Baye Fall moom mi nga xam ni boo nekk ci ginnaaw kenn du ko dégg kenn du ko gis waaye daanaka lu mu laal lu mu bu dul woon moom tey ci du ñu mën a ñu mën a def dara kon mu ne su ko bañ a sant di sant auditeur yëpp di leen ziar di leen joxaat dox daje dimanche ak jàmm. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرين جرين.